keneen ku ñàkk Pastef ba yegg ca lool mi ngi ci xët mu njëkk journal bi nañu wàcc Babacar fii la kii benn journaliste bu jigéen la boo xamante ne ji libération moo ñu xibaar li nee na dafa dal ci benn gaayen ci internet bi xamu ko nag gaayen bi jël benn photo rek tegal ko ko ne ko maa ngi nii xale bu jigéen bi yaakaar ne dal na ci lu ko gaayen bi sant mu def ko skype la koy jaarloo di ko summeekuloo xale bu jigéen di ko def lu ne mu dugg ca génn ndekete gaayen bi da koy enregistré yéen kaay bi nañu journaliste boobee journaliste Euh, ci réew mi la nekk ci organe bu siiw ñoom waa Libération li ñu xam te man ko daal mooy journaliste boobu nekkul Libération Pape